te dañ fi ñëwoon pour euh, def na u visite xool état des lieux xool aussi euh, chantier bi fan la affaire yi toll pour que ñu mën a xam exactement nan la ñuy def par rapport ak les mois à venir jéem a xool nan la ñuy euh, organiser suñuy match daal. ba am na avancement moom bu bu bu bu mag sax parce boo xoolee biñ fiy ñëw keroog man la ñëpp ministre bi deux yi passé bi ñëwaatee. tey jii gis nañ ne daanaka avancement yëpp sori na parce que boo xoolee dugg nañ def visite karo yi mi ngi fi terrain basket bi commencé nañ ko def fondement bi terrain yi aussi def nañ tous les yoo xam ne vestiaires yeeg yëpp defar nañ jàpp naa ne même poste be nga xam ne ci lañ doon wax affaire courant beeg yooyu yëpp ma nga ne di ko taw d'ici peut être demi après demi peut être mën na nekk mu mu jeex mu pare ñu indi indi courant bi léegi jéem a xool pelouse bi moom daanaka boo xoolee moom moom moo njëkk li si def mooy piste athlétisme bi ñëw nañ fekk nañ ko xoos nañ ko te biñ fi njëkkee woon a ñëw te daa peut-être bi gars yi dinañ ñëw démarrer les travaux daal. ah sax ko xanaa d'ici d'ici deux ou trois si deux mois sax parce que mën nañ ne mën nañ ne de bu ñu un mois peut-être dina xaw a jafe mais ni ngi koy ñaan daal un mois sax su mënee nekk ñu fexe ba mois de mai bi. boucler tous les travaux yoo xam ne dafa dafa dafa war am ci mën a suñu suñu suñu compétition parce que peut-être à Diourbel bu fekkee ne dañ ko tëj danañ am loo xam ne peut-être du neex ci footballu région de Diourbel parce que bu ñu bëggee dem suñu équipe yi Ligue Pro yi ñi nga xam ne mooy la Sonacos ak Avenir de Mbacké N2 bi bëgg dem di recevoir yeneen dëkk si loolu dañuy yokk dañ mën na peut-être mën nañ wàccewaat équipe yi te boobaa ñu aussi au niveau football bi ci ci au niveau national daanaka pratiquement du ñu fi dégg daal. suñu sañoon daal premier ministre bi nga xam ne moom lañ dënk leng mu fexe ba mois de mai bi daal mu boucler tous les travaux daal di ko bi ñu mën a fini. bi fi ministre bi ñëwee Yankhoba ak euh, le ministre Galaba le ministre maire Galaba dañoo dans deux mois parce puisque déjà stade Diourbel bi c'est en on est en train de voir comment faire maintenant pour que Sadou Mbacké bi a pare le plus possible que jëbal donc le football loolu la ñu ñëwoon xool si ko bon bi ñëwee aussi par rapport ak visite Tunis bi travaux yi sont avancés parce que déjà le carrelage est déjà bouclé pratiquement ay finition moo ci des les projecteurs sont déjà installés reste que balancé ko connecté ko réseau Senelec bi donc poste de commande poste de distribution bi ñu koy tabax euh, donc. pratiquement bon aussi plateau parce que ak handball pratiquement fondation yi bouclé nañ ko terrassement bi sans cours bu dee handball sax football terrassement bi de terminé nañ ko donc que defar plateforme bi maintenant pour que pour ce qui concerne peut-être tribune li ñuy li ñu li ñu ci constaté c'est que bon les toilettes ne sont pas encore fonctionnelles alors moom. Euh, donc c' est une condition sine qua non pour que ñu mën a utiliser euh, tribune bi stade bi le tel le terrain terrain football bi quoi euh, aussi les yi bon on n'a pas installé buñ ko aussi war nañ ko installé a part ça peut être porte yi ak connecté ndox bi mais daal peut être fi des pour produit xam moom moo nekk produit gros œuvre peut être gros œuvre sax ki ko ay la parce que travaux de finition yoo xam dañ ko def pour que a euh, considérer que stade bi liggéey pare na ak peut bi on va démarrer bientôt déjà les gens parlent de léegi pour démarrer piste bi piste d'athlétisme bi donc c'est déjà aménagé ko pare terrassement bi peut-être va falloir ensuite le mais daal moo des. am na ci satisfaction mais aussi bon nous sommes un peu dans parce que déjà vous savez région bi amatul infrastructure pour abriter ay compétitions on risque de de localiser certaines compétitions et loolu le plus souvent euh, day day day indi contre-performance ci ci équipe bi donc raison pour laquelle bon ñu ci woon pour ba xam bon le ministère le ministre le ministère moom moo yor le dernier mot ba xam peut-être bu fekkee ne mën nañu ko utiliser wala déet ñun ñun dañuy war a technique rek la ñuy utiliser ñu war a utiliser. d'accord le reste c'est le c'est le ministre qui va apprécier. happens.